jërëjëf sëñ Fallou ñu ngi lay nuyu di la ziar di la sant ci jéego yi nga def pour ñëw euh, waxtaan ak ñun ci wàllu poste de santé bi ñu ngi yëkkati nuyoo ak ziar jëmale ko ci sëñ Mountakha Bachir di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ko ñaanam mbooleem njaboot sëñ Touba di ziar njabootu sëñ fàllu nga xam lii ñuy wax kenn ci ñoom muy euh, sëñ Ahmadou Badawi moo ko sabab ba yàlla dogal mu pare muy benn post de santé mën nañu wax sax centre de santé ndax dayo bi weesu na dayoo poste de santé euh, muy structure de santé boo xam ne dispensaire bu mag a mag a mag mu tabax ko fii ci Ndindi euh, ci wet goo xam ne daanaka dafa tumuranke woon wàllu fajukaay euh, sëriñ bi dem ba gis ni bërëb bi aajowoo na ko te nit ñi yittewoo na ko mu wooñu waxtaan ji ak ñun laaj ñu ci suñu xalaat ñu ànd ak moom dem ba ci barab ba xool ko nemmee ko foofu gis ne fii kat bërëb la boo xam ne ñun ci suñuy saytu ci wàllu yaatal wàllu faj ci Touba bokk na ci bërëb yoo xam ne namoon nañ fa def poste de santé waaye xëy na wàllu état du xëy rekk sotti sëriñ biñ ci waxtaaneek moom mu ne moom pare na ngir def fi hôpital bu mag boo xam ne ñi dëkke fii ak ñi nekk ci ginnaaw ak képp ku ko yittewoo rek mën na ñëw euh, faju si ci hôpital boobu sëriñ bi nag li ñuy rafetlu dëgg-dëgg ci taxawaayam mooy doxalin bi yéene ji ak pas-pas bi ci doxalin dafa jaare bunt boo xam ne buntu maanaam fi mu ko war a jaar la ci xam-xamu faj ndax district bi moo yor wàllu couverture sanitaire moo yor carte sanitaire bi fii ci Touba moom mënoon na jóg rek defar poste noonu tabax ko euh, te su boobaa dañ ko ciy fekk si mais moom dafa jiital wàllu xam-xam ñëw laaj ànd ci ak ñun wax ñu xalaatam ba pare taataan suñuy xalaat ci kaw loolu la defare ay plan jëlaat plan yi jébbal ñu ko laaj ñu ci suñuy xalaat ñu xoolaat plan yi xool ba xam ne dëppoo na ak bérébu fajukaay bu mucc ayib ñu leeralal ko mu daldi tàmbali liggéey bi boobaak léegi am na lu mat ñaari at mu nekk ci di ko liggéey muy euh, structure de santé bu mucc ayib ndax euh, ci wàllu bâtiment def na fa ay bâtiment yoo xam ne mën na abriter maanaam mën na dalal bérébu fajukaay bu am maqaama centre de santé centre de santé mooy daanaka li topp ci hôpital nga xam bala nga àgg ci poste de santé ci centre de santé ngay jaar maanaam ci wàllu dayoo mu tabax ko mu nekk euh, structure bu dëppoo ak jamono ndax plan bu mucc ayib la ñu dem fa topp ànd ak moom ci liggéey bi di ko saytu ba yàlla dogal mu pare bi mu paree aussi mu wooñu waxtaan ci ak ñun ñu jébbal ko suñuy kilifa ministère ministère rafetlu ko ministre bi ci boppam ñëw fa ñëw euh, nemmeeku bërëbu fajukaay ba pare dig ko ne ko dinaa la jàppale ci wàllu matériel ak wàllu personnel ministre bi nag loolu mu wax génn ci ndax yónnee na matériel bi nga xam ne moom la njëkk a jot am na lum ci yónnee ba pare boole ñu ak ki ñuy wax daaj ne ñu dina am leneen loo xam ne su accès rek dina ko jébbale boole ko ci liggéey bi jàppale ko sëriñ bi teewul nag sëriñ bi euh, wéy ci taxawaay yu rafet ba jënd ay matériel yóbbu fa fas yéene ko ubbi le troit maanaam ñaari fan ci weeru ñetti fan ci weeru avril nga xam suñu defee kasu rajab ba ca ëllëg sa suñu paree cérémonie officielle bi ñu jàll fa ubbi officiellement structure bi ci teewaayu xalif général des mourides taxa Bachir ak kilifa yi muy àndal yépp muy loo xam ne dañ koy rafetlu ndax fa ñu def structure bi ñun dañ daan am jafe-jafe pour taxawu nit ña fa nekk ndax ndindi ku nekk xam na ne ndindi dafa yaatu am ginnaaw boot ay quartier yu yaatoo yaatu te mbooloo mu takku nekk fa macha allah mu nekk bërëb boo xam ne post ba fa nekkoon sëriñ Modou Bousso Dieng moo ko tabaxoon dagg ci lenn ci kër sëñ fàllu def fa poste post boobu nag jamono dafa dox ba àttanatul liggéey bi kon ñu rafetlu sëriñ bi lii mu def ñëw xool wet goo xam ne ci biir Ndindi daanaka ña daan jéggaani faj dañu bari daan dem ba ay poste yoo xam ne da leen sori ñuy def lu ëpp juróomi kilomètre sëriñ bi teggil leen coono boobu indil leen structure boo xam ne lépp dañ fas yéene mu am fa ndax fas yéene nañ mu am personnel bu doy am ay docteur yu doy am ay sage-femme fas yéene mu am laboratoire am échographie am bépp jumtukaay boo xam ne rek ñoom dañ ko daan jéggaani ñu fexe ba yóbbu ko fa ngir taxawu nit ñi kenn bañ fa jógeeti di def ay distance ngir dem mën a faju surtout nag ci wàllu xale yi ndax prévoir nañ fa euh, bërëb boo xam ne dañ ko jegale xale yi ndax sëriñ bi dafa tabax structure bi noo xam ne ca kaw def na fa étage boo xam ne xale yi rek lañ ko jegale ñu am yaakaar ne su lépp sottee daanaka xale yi daan jóg dem di faju ji ci yenn structure yi dootul jar ñuy dem di ko jéggaane ji feneen leneen li itam structure bi fañ ko def quartier la boo xam ne quartier bu yaatoo yaatu la ba pare nekk bërëb boo xam ne dafa boot ay yeneeni quartier yoo xam ne dañu sori ay bërëbu fajukaay kon structure bi daal liñ ciy rafetlu mooy eh, ni ci sëriñ bi taxawee fexe ba lépp sotti ci diir bu gàtt ba pare muy loo xam ne am na njëriñ lool ci nit ñu fa nekk ndax ñun ñi yor wàllu paj xam nañ ne ndindi laaj na yeneen hôpital sax kon bii dafa ñëw teggil nit ñi coono yi ñu ciy sant bu baax nag di sant sëñ Ahmadou Badawi di ko sant bu baax ci lii nga xam maanaam daf ko def ngir askan wi ndax moom bi lépp pare dafa ñëw ne ñu jébbal nañ leen ko ngeen fexe mu dox ni hôpital yi war a doxee te mu amal njëriñ nit ñi donc du loo xam ne daf ko tabax di ci wut dara ndax lépp da ko jël jegale ko askan wi ñu fas yéene nag ànd ci ak moom di ko ci jàppale ba lépp lum ci séenu ci teggal nit ñi seen coono ak wàllu faj mu jàppandi ñu fexe ba loolu mën nekk kon ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi dolli ko wér gën a dëgëral taxawaaya bi ba lii nga xam ne naal na ko ba mu sotti mu naal yeneeni naal yu niroog moom te mu ànd ceeg ñun ñëpp ñu sotti ko ci jàmm jërëjëf